économie de finance ministre de finance bi di Bitse mu ministre bu am solo pour réew mi di la féliciter si doxalin bi nga xamante ni am na ci Covid bi ni nga xamante noonu ngeen doxale te li ko waral nag ñi sa ginnaaw ñi nga xamante ñu ay politiciens ay techniciens lan ku sama la directeur général du budget le directeur général douane la euh, directeur cabinet SC yaakaar naa ni borom xam-xam yu nekk si ginnaaw ministère te du ñuy politiciens ñi muy amee différence ñi nga xam ne dañu ne si ginnaaw ministre di politique mooy lii kon ñu ngi lay félicité di leen félicité wax di encouragé ak jigéen ñi toog fee muy madame Diakhaté ñoom euh, monsieur le ministre fi may ñëw yow le budget général 3226 milliards recettes 3969 milliards virgule 9 dépenses su déficit 749 virgule 743 virgule 9 milliards déficit boobu monsieur le ministre bëgg nañu xam tey jii ku ne xam na ne recettes yi dépenses yi moo ko ëpp bëgg nañ sa xam ay explication lu tax loolu am monsieur le ministre le recette fiscale le déficit rapport 2020 110 milliards virgule 5 2020 deux 26 euh, euh, euh, milliards 26 milliards 75 2021 256 56 milliards virgule 4 milliards kon dama jafe ni foofu li ñu doon wax rek ci rapport bi dikk na tey ku ne xam na ni tey domaine li war a dugal dugalu ko li nga xamante ni mooy tey jii douane ñu ngi leen di féliciter yaa 49 pour cent la ñu dugal ci budget national kon ñooñu jàpp naa ni war leen a delloo njukkal ndax ñooy soldat économique mais douane mais domaine liggéeyuñu liggéeyuñu monsieur le ministre loolu moo taxoon ci commission bi. ñu wax la ni domaine liggéeyul ndax ñàkk liggéey bokk na ci un déficit boo xamante ni am na cent dix milliards ci loo xam ne war nañu ko encaissé encaissé lu du nekk di politique ak di taxawaalu ak di jël suuf si di ko jaay te loo xam ne tegul fenn di ko pasar pasaree jàpp naa ni mun ñu la fal 2019 muy directeur domaine Mame Boye Diao 2019 ñu fal la tey nga nekk maanaam fonctionnaire ba ëpp alal ci Sénégal di dawal ñetti oto yoo xam ne cent cinquante millions lay jar. doo xëy si doo liggéey si bu pare jël suuf si di ko jaay loo tegul fenn mën naa laa wan ay ay leeral yoo xam ne si loolu monsieur le ministre boo jëlee une notification boo xamante ne le 20 mars 2020 si la ñu signé notification ak Mame Boye Diao mu rattaché ko si commission bi nga xamante ni commission euh, bi nga xam mooy contrôle 19 avril 2018 te boobu ku ne xam ne nommé ko notification baa nii ñu jël ko di ko jaay di jaay suuf si di ko pasar pasare Sénégal loolu moo tax loolu mun a avancé yow mi nga xam yaay ministre di wax ak président de la république il faut que ñu jël ay matuwaay ak ay responsable ci li nga xamante ne mooy domaine bu ñu bëggee li nga xamante ni mooy mbir mi jaar yoon du ma la wax nag lenn loo xamante ni awma ci preuve preuve yaa ngi nii notification yaa ngi nii signature yaa ngi nii kon loolu bokk na si loolu monsieur le ministre boo jëlee tey jii le total de dépenses de finance 2020 37 milliards 370 milliards virgule 9 boo jël 2021 3 969 milliards virgule 9 am na augmentation 260 milliards francs CFA bëgg nañ xam augmentation yi aussi boo jëlee vice président de la république la augmentation engagement EE e nekk na 49 milliards mi ngi nekk maanaam taux 131 virgule 1 pour cent les déficits crédit paiement mi ngi nekk maanaam moins 27 virgule 8 pour cent bëgg nañ xam loolu lan moo ko waral boo jëlee assemblée nationale EE e mi ngi nekk augmentation. deux cent douze virgule trois pour cent CP nekk maanaam plus neuf pour cent augmentation bëgg nañ xam aussi lan moo ko waral ndax jàpp na ni assemblée nationale tey ji li nga xam moom lañ wax ni moo tax ñu war a yokk budget bi wax dëgg yàlla jëru ko boo jël li mooy conseil social mi ngi nekk augmentation CP quatorze virgule cinq pour cent boo jëlee conseil économique de collectivité territoriale mi ngi nekk maanaam augmentation 635 mi 35 euh, pour cent boo jëlee CP mi ngi nekk maanaam plus 11,5 pour cent kon yaakaar naa ne augmentation bi sa yooyu il faut que ñu xam ni loolu amul benn njariñ li ko président Sine Cheikh doon waxee askan wi fi ñu toll war ñu yokk ay augmentation ay yoo xamante ni tey dañ ko waroon tas ci réew mu normal ndax conseil économique social li tax ñu def ko président la République ku ne xam ne nee woon bu ñu jënd ay oto ñu ngi jënd ay oto en tout cas si vous remercie li ñu bàyyoo benn yoon mais preuve